Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf élection législative yi moom la yéene kaay yu bëri xëyee tey réew mi quotidien di ci yëgle ni njiitu réew ma woon Macky Sall daal dina tekki ndombal tànkam ci 4P bi nga xamante ne Emmanuel Macron moo ko dénkoon ngir fas yéene dellu siyaat ci réew mi jaamarloo ak ki nga xamante ne kon mooy Amadou Ba ak Ousmane Sonko les échos dëggal ko ne kon lu jëm ci activité internationale am Macky Sall Diouf ngir ñëw jàmmarloo ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ci boppam waxuma la Ousmane Sonko waaye pouvoir bi ci boppam jamono ji mën nañoo jàpp ni dina métti lool ci ñoom bu ñu sukkandekoo ci le quotidien yéen kay ma jàmbal jaan bi di xam le ni kon moom tête de liste takku wàllu fas yéene na dellu ci réew mi te du am benn protokol ne kon laale bi moom dina am digganteem ak Ousmane Sonko waaye tamit amadu Ba enquête ne ko waaw kay ndax diggante Sonko ak Macky laale bi moom faaw mu am ci élection législative yéenekaay bi ne gannaaw attaque yi nga xamante ne Ousmane Sonko def na ko moom Macky Sall jël na dogal bàyyi 4P ngir ñëw defante ak ñoom ci élection législative yi yëf yi sax dina tàmbalee ca Paris ndax yéenekaay bi mu ngi ñuy xamal ni meeting bi ñu doon waajal fukki fan ci weeru octobre bi mujju nañ ko dakkal waaye moom jiital APR dina dalal ay responsable politique foofee ca diwaanu Paris la France gannaaw Paris googee la tribune di ñu xamal ni moom Macky Sall démissionné na ngir dellu siat ci réew mi ci réew mi moom dafa mel ni critique yéeni kay gëmu ko nee na lii xeetub sëlëm kese la ndax Macky Sall ak lu nu koy tuumal yépp suñu naataango yi ne dina leen jaaxal lool ñu daal di koy gisaat fii ci réew mi rawatina muy bokk ci ab campagne électorale lii Macky war a bokk ci élection législative yi moom Sud Quotidien dafa gis ni ma ngay topp tànk ki nga xamante ne moom mooy maître Abdoulaye Wade ndax moom it gannaaw ba mu ñàkkee nguur gi dañu ko investiraat tête ci ay élection législative ci tuuma yi nga xamante ne nag premier ministre ak nguuram ngàll nañ ko ci ndoddub kii di Macky Sall Vox Populi di ñu xamal ni kon njiitu réew ma woon ak ñi mu àndal ca APR daal dinañ koy weddi ne kon ay kàddu la yi nga xamante ne amuñu ci benn firnde ci kàddug APR yi ba tey nee ñu Cour de comptes laata muy addu ci yëf yi faaw rek ñi nga xamante ne ñoo ngànk nguur gi daal di leen jébbal yooyu lay rapport rapport gi ñu def ba gis ni am na ay nëb-nëbal ci bor bu senegal yoor yor bi nee ñu léegi dëgg gi feeñ na loolu tax na sax ba FMI ci boppam jamono ji taxaw na tembe ngir jàppale état bu Sénégal yéene kaay bi dafa mel ni ku dëggalaat kàcc yi nga xamante ne kon nguurub Macky Sall def nañ ko ci audit yi nga xamante ne kon nguur gi def na ko Le Soleil di ñu xamal ni kon FMI ci boppam daal na koy dëggal ba noppi digle ni dina jàppale bu baax nguur gi nga xamante ne kon moom moo fi nekk loolu tax na ba njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye rafetlu lëkkaloo bi nga xamante ne war nañ koo sekk kon ak kuréel gi di FMI yéene kaay bu aan bi yokk ci nii li Sénégal deltu ginnaaw ci Moody's am nañ ci ay pexe ngir kon daal di koy sukkaliwaat classement Moody's googee tamit Walf Quotidien Cissé daan na ci dikkaat ak deltu ginnaaw bi nga xamante ne Sénégal def na ko ci jàngat li dénk ci kàdduk may sababu économiste bi li mu ciy xamle mooy njeexitali moom léegi ñu daal di koy mën a saafara keneen ku ci yëkkati kàddu di Ibrahima Thiam secrétaire d'État bi ñu dénk wàllu PME yi mu jàpp ni kàddu yi nga xamante ne premier ministre Ousmane Sonko yëkkati na ko dina tax kon ba investissement yi gën a yokk ci Sénégal li mu ndongo yi di yokk ci école bu Sénégal Sud Quotidien di waxaat ci année scolaire bi nga xamante ne door na niki tey ji di fësal ci lim lu ëpp tollu ñeenti million ak lu teg ni ay gone ñoom ñoo bindu ngir fas yéene jàng ci atum ren ji njàng mi ci at mu ren ji dina am lu ci soppeeku ndax l'observateur mu ngi ñuy xamal ni règlement intérieur bi nga xamante ne moom moo ñeel doxalinu école yi mu war a dëppoo tamit ak constitution bi dinañ ko fësal jëwriñ ji ñu dénk wàllu wi di Moustapha Guirassi ne kon dogal bi dinañ ko jébbal ñi nga xamante ñoom ñooy inspection d'académie yi ni ki tey jëwriñ ji yokk ci ni kon bi singali jàngu ji wala sax école coranique yi njiitu réew mi mel fàttali francophonie ba tax mu daal di dumóoyu ndaje bi nga xamante ne moom la ñu doon sekk ca diwaanu Paris Yacine Fall mi ñu dénk intégration africaine ak affaires étrangères dikk na ci lan moo ko waral ci yéenekaay bi di bis bi la jour wax na sax ni Sénégal moom musuta ànd ci li xew ca Palestine ndax daf koy méngale sax ak génocide te loole nekkul taxawaay bi nga xamante ne waa francophonie am nañ ko jeex ba ca Liban l'observateur xëy na ci tamit tey di nettali ana naka la doomu sénégalais yi fa nekk di dundee ak bombardement yi nga xamante ne kon ñun ko fay nemmeeku nemmeeku ni Ismaila Yakobs mi nga xamante ne wooloon nañ ko mu war a bokk ci jongante Sénégal Malawi bi ñu dëgmal ñu ne gaañu na ba tax du mën a bokk ci yile jongante waaye la cay ñuul yéene kaay groupe Rewmi Network bi di xam la ni kon défenseur bu Galatasaray bi démb seen nañ ko ci jongante championnat mu wane ci boppam lool ba équipe bi jël ci ndam moo tax ñàkk teewam bi mel ni lu ko jaaxal ñu jaaxle woon ci situation bu Sadio Mané bu yóbboo seen xel dal ndax record mu ngi ñuy xamal ni kon moom